ci dimanche bi dimanche lañ ko baxo di def ak euh di jéglu bu baax ci guddee bi euh yité jamono moo waral waral tay nak ñu fas waxtane juroomi gënt yo xamné boko gënté rek xamal ne amna na ku wala amna ñu la iñané di la euh bu féké ci walu gogul la danañ la ci indi kon juroomi gënt yo xamné boko gënté rek wala ngay faral di ko gënt lu bari xamal ne amna nit ñoo xamné dal buñu sañoon yow do def Euh, doomu aadama nag euh, ci génn ci dundam war na rafet njort waaye am na yoo xam ne ay firnde la yoo xam ne mm, yuñ mën a teg loxo bu dee ci wàllu jalousie ak yooyu noonu am na vidéo buñ ci def ci suñu seen YouTube bi di Leral Plus TV moom lañ la suggéré noonu booy seetaan à boo boo see vidéo bi mën nga koo seetaan incha allah euh, léegi nag nit ñi nag lu bari ci li leen tere nelaw mooy iñaan di diw daf ma iñaane wala diw daf may yàqal euh, ba tax sax ñu bari seeni biir dañ koy nëbb ngir lan yaakaar nañ ne am na ñoo xam ne buñ ko gisee rek du sotti te loolu nag lu lu war la euh, ni ki noonu kon day dem ba nit ñi day nekk lu nécessaire ci ñoom ñuy aar seen bopp ci lépp ngir mën a mucc ci ayu iñaan ndax alquran wax na ko min sharri xaasidin idaa xasad wa min sharri xaasidin iza xasad ci ayu ko iñaan bu fekkee nag dem na bay euh, feeñal iñaanam te moom muy def def ay pexe pour yàq kooku kon boo demee ba yàlla woon la ko ci gént kooku tegtal la ci ne yàlla mi ngi lay avertir sa ngir nga moytu kooku li nga xam ne mi ngi lay iñaane niki noonu tamit kon euh, euh, ci loolu kon am na mbir yoo xam ne Euh, nit euh, boo ko gisee rek xamal ne kon bëtu ki iñaan xam nga léeg-léeg nit dana la iñaane fekk du la ko wax mooy xool ba mu lay xool rek mën na laa yàqal loolu la ñuy tuddee bëtu aji iñaan nga xam ne su boobaa war nga cee jóg ne kon bëtu ki iñaan laal na la njëkk ci gént yooyu nga xam ne day firi euh, ne dañ la iñaane bokk na ci gis couleur bu jaune couleur bu jaune ci gént moo xam yére la wala lekk la wala ci miir nga ko gis kooku day firi ne yow mii kuñ iñaane nga am na ñoo xam ne buñ sañoon nga yàqule euh, ni ki doon tamit bokk na ci loolu bokk na ci tamit euh, nga gis lu mel ni safron ci gént kooku day firi ne yow mii ku ñu iñaane nga euh, bokk na ci yi nga xam ne tamit day firi ne yow kuñ iñaane nga te ñi la iñaane mën nañ laa yàqal lu bari mooy nga gént gis ñu posane la ñi pose na sa lekk kooku bokk na ci gént yi nga xam ne day firi ne yow kuñ iñaane nga bokk na ci tamit ci gént yooyu gént gis yahut yahut boo géntee gis ko xamal ne yow mi euh, am na koo xam ne da lay iñaane euh, kon yooyu bokk na ci yi nga xam ne im Ibnu Sirayni euh, lim na ko mu bokk ci ñi nga xam ne gént ñu la iñaane la bokk na ci tamit nga gént ñu lay sàcc Euh, sàcc dugg sa kër di sàcc say bagage wala say matériel wala mbir moo xam ne da nga koo soxla wala nga gént ñu tafu la wala nga gént yor dara ñu këf ko loolu yëpp day firi ne kon am na nit ñoo xam ne dañ laa iñaane wala nit koo xam ne mi ngi lay iñaane te mu ngi lay jéem a yàqal ci suuf kooku lu mat a bàyyi xel la kon sàcc ci la bokk bokk na ci gént yi nga xam ne aussi euh, day firine yow kuñ iñaane nga Euh, legi day fi bant nga gis bant euh, ay bant yu ñu wërele mu nekk néeg wala ay bant yo xam bant bo xamé dang ko yor wala bant noko gisé ci gënt rek mën na firi nit ku naa nit ku iñaan ko xamné mi ngi lay dugg euh, nee néna kon su boba xamal né war ngaa moytu war ngaa def attention bu baax ci ñi ngay jëflanté ak ñi ngay andal bokk na ci gënt yoyu nga gënt di xol tim ten di xol teen ba nu mel kooku tamit bokk na ci gént yi nga xam ne day firi ne yow am na nit koo xam ne ku la iñaane la te mi ngi xool say mbir fu mu la mën a yàqalee teen nag am na yeneen signification xam naa bu ñu defee euh, émission ci teen dana gën a leer waaye dal bii ci la bokk bokk na ci gént yi nga xam ne day firi ne yow mi euh, am na nit ku la iñaane mooy gént gis puso euh, puso nga gis nga gis di ko nga yor ko mel ni ku am nga am lu la jam nga di ko dindi ak puso euh, kooku day firi am na ku la iñaane puso kese nag am na yeneen signification moom tamit waaye bu fekkee dañ ciy dindi dara lu la jam ci tànk wala ci loxo kooku day firi yow mi am nga ku la iñaane wala nga ci euh, euh, defar sa piisu téléphone ak yu mel noonu am loo ciy def lu bokkul ak ñaw niki noonu tamit nga gént euh, di xool bën fa bën bënu puso lu toll ni bën bën loo xam ne bën bënu puso la nga gént di ko xool kooku tamit euh, day firi ne nit mu ngi lay xool bëtu iñaan bët yu sew euh, ndax ku iñaan dana lay xool di la seetlu seetlu yu sew yoo xam ne sax yow loola doo ca doo ca bàyyi xel kooku bokk na ci gént yi nga xam ne kon day firi iñaan bokk na ci yooyu gént nga gént gis miir bi am bënn bënn bu ci nekk Euh, ab bënn bënn bu nekk ci mur euh, nga xam nit xaj na fa wala yére xaj na fa wala sax euh, nit xaju fa waaye loxo xaj na fa wala dara moo xam bënn ba rëy wala mu tuuti su boobaa kooku su boobaa day firi maanaam iñaan goo xamee nit dana la ko iñaane wala botu iñaan bu la nit du di xool wala pexe yu bon yum lay pexeel pour yàqal kooku kon lu mat a bàyyi xel la ci yi nga xam ne kon day firi ne yow mii gént lu ni mel ku ñu iñaane nga fekk bokk na ci gént yooyu tamit nga gént wax nañ ko sànq euh, maanaam ñu posone la kooku dana firi ne yow kuñ iñaane nga wala nga gént gis juif ndax juif yi dañoo iñaane jullit yi torop moo tax boo géntee gis leen rek xamal ne yow mi ku ñu iñaane nga wala bu fekkee yow dëkk bi nga dëkk am na dëkk boo xam ne juboowul ak euh, moom nga gént koo xamee ne nationalité boobu la yor maanaam ñaari dëkk yi dañoo nekk ci état de guerre wala sax ñoom buggante wuñ ci cosaan nga gént koo xam ne ci dëkk boobu la nekk di wax ak yow xamal na am na ku lay iñaane ci ñi la ñi la wër ñoo xam ne euh, xamoo leen euh, niki noonu tamit euh, bokk na ci gént yi nga xam ne aussi dana firine ne maanaam bëtu iñaan dugg na la maanaam cat su mooy nga gis sa yére am ay bënn-bënn waaw nga gis sa yére am ay bënn bënn mooy cat dugg ne la wala am na nit mu ngi lay xool bëtu bëtu iñaan kooku lu mat a bàyyi xel la ni ki noonu tamit nga gént ndab wadd daanu toj kaas ndabu verre wala kaas kooku tamit dana firi yàqule goo xam ne da nga ko yàqule te cat moo koy waral wala bëtu ko iñaan wala koo xam ne mu ngi lay yàqal ci suuf te te xamoo ko ni ki noonu tamit yooyu bokk na ci yi nga xam ne cat la xam naa boobu émission spéciale lay doon yi nga xam ne day tegtale ne yow cat dugg na la wala dugg la waaye tey li ñuy teeloon rek mooy indil la yi nga xam ne mooy firi euh, iñaan euh, ne nit mi ngi lay fexeel ci suuf ndax lu mat a xel la nit xam ko ci boppam incha allah te yaakaar naa yiñ la ci limal yooyu moo ci gën a fes boo ci bàyyee xel rek incha allah yàlla mun na la dimbale bu fekkee gént nga ko nga xam lu muy firi euh, nga mën a fàggandiku ci sa bopp incha allah di la ñaan yow mi ñuy seetaan te abonné goo ci chaîne bi nga abonné du la jural dara gis nañ ne ñiy seetaan nag moo ëpp ñuy abone te abone moom du dara lu dul nga bës fi mu bind abonné rek boo gisee mu rouge rek xamal ne abone goo boo ko bësee rek dootul rouge ti day doom taal su boobaa nga xam ne yow mii abone nga bokk nga ci chaîne bi léegi am na flèche boo xam ne boo ko bësee mu indi la ñetti cloche nga bës bi ci kaw nga xam ne saa buñ dugalee vidéo yu am njëriñ yi nga mën cee jëriñu comme ñëpp incha allah di la ñaan tamit yow mii seetaan nga aimé vidéo bi bokk na ci li ñuy dooleel bu nexe yàlla di len jajeufal bu bax di ñaan ngeen abonné ci chaîne YouTube bi di Leral Plus TV ak ci chaîne YouTube bi di Al munir TV dañ leen ko suggéré ci biir vidéo bi bu nexe yàlla wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh